ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant bu ñu nee la 15 octobre mooy bis bu rëy boo xamante ni moom moo production moo ñu woo boole ñaari ndaanaan xale bi nga xamante ni mooy Mbaye si Junior di waree Géejawaay ak Xeeru Ngor numéro 2. dem nañ démb open press Xeeru Ngor numéro 2 gi Ngor gépp génn dooleel seen doom dégg nga wax yi mu wax yëpp jëmale ko ci yow nee na moo la mën. moo la doole moo la dàq xeex te làmb ja doo am dara loolu nag tey yow yaa war a tontu lan ngay tontu xeeru ngor numéro 2 Mbaye Tine ñu ngi lay nuyu. ginnaaw ma sant yàlla julli si yoon bi maa ngi sant samay ñaari waajur di sant sama yaay di gërëm sama papa. ma amoon ñu dul ñoom man maa am ñaari waajur. kooku li muy wax noonu dawul sax sama yaram. Hmm. bu jour ba lay comprendre. maa ngi sant ñi may jàppale waa koñ bi sama waa koñ. sant moom dig ci ñëw. open presse bi. Hmm. fee la am gars yi bëri fa lañ ko yaakaar. Hmm. mais suñu gaan xam suñu benn gaan papa moo décédé. Aliou Pata ñu ko koy jaale bu baax a baax waa suñu paa bu baax la woon. yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana moom loolu moo tax affaire demee nii quoi. xam nga waaw maa ngi sant ñëpp képp ku fi nekk rek maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax. waaw ma limee damay juum maa ngi sama gars yëpp suñu waa écurie mbëru Guèye yëpp ak sama sama booy nag mënu ma leen soon na nañ ci combat bi. adversaire bi dama ne ko lan nga ñemee mbaytin ba jël ko mu ne mbaytin moo ma yàpp ba jël ma ndax daa am benn for daa for ci boo yëmbal yaakaar ni loolu moo tax mu mun maa jël te bu ma jëlee dootul laal. bàyyi jël nit ñi kenn mënu leen nax. xeeru ngoon lamine bee rëy. xeeru ngoon men lamine bee rëy la mënu bëri. te bu suubaa dina xam ne lamine lay bëri. bàyyi jël yéen xam ngeen mu baax man bay jël. man su ma nee ragal tekki sama ngëm. wóor na yàlla lu xaar nga lu dund ma ko. te bu suñu baax war nañ génn suñu diggante maa moom ci lay xam kan mooy mbay mi. xeex wala bëri. bu laa bëgg laaj rek. bu laajee ñu xeex xeex bu laajee ñu bëri ñu bëri. Baye Djili. man damaa foo. Baye Djili. Baye Djili man damaa foo. nga ma nekkoon ma toog gars yi duñ toog cuune man mun maa dëgg géej waaye bu naan ñetti mbaal di doon ragal yàlla tere xar la te bu jour dina xam ne la wax ji nag dama koy démb ci yalaan naa na bu jour ba fu ma fekk na ma fekk nee na bu jour nekk na ma fekk maa ngi koy xaar day xalaat da ngay taxaw xaar koy ah, kuy ñëw koy jarul koy déglu moom da ngay mu ñëw waaw. Ah. bu ko xaaree ñëwul ñu dem. waaw waaw jël dem la rek. waaw jël dem la bu ko xaaree ñëwul ñu dem. teel laay waxee bu amee prix dellu si diggante ma ak moom. xaaral ko bu dee li muy wax dëgg la. man mbay mi du ma ko te bu ngeen ñu xeex dix minutes soo ko jàppandi. non non non leer laa doon xam nga ñoo bëgg rek. par mosoo gis mbay diin réglé benn xam xam benn tànk te bu jour ba dina xam ne vainqueur lay bëri leer laa la wax. jàmbaar jàmbaar lay bëri ak yow man kaamil te ba la koy comprendre. waaw bàyyi jiri xeeru ngor fi mu teg làmb ji moo koy waxloo nii rek. la ko teg. waaw fu ko tegee fu man maa gën a teg fu wóor fu làmb ji incha allah le 15. fan ah, la ko teg. waaw fi mu ko teg ñoom xam nañ ko. mooy fan moo si wàllum musique. moo tax mu ne sa ngemb sax mu ngi këram. déggoo ma ne waaye kii day sóob rek. Ah, kii xoolal xam nga kii li mu wax nii ay waxul làmb rek ah, man xoolal man yooyu noonu dawul sama yaram te bu jour ba dina xam yooyu dawul sama yaram. bàyyi Serigne Baba bàyyi Jiri yow ma yow bàyyi Jiri ma yow ma waa Guédiawaye man mbooroom mbërë may topp barki Serigne Bamba te bu jour ba dina xam ne Mbaye Tine bokkul ak xam nga yeneen mbër yu doon bëri. mos naa mos naa am adversaire dayoo ko Mbaye Tine. kër xeeru nga. waaw yàgg na xaru ma damay bëri si àll bi. bëri naa Alassane Diouf sëñ Mor Niang moo ko jóg ko mën a bëri moo sut xeeru ngor moo ko sama booy yi xam ne ñoo baax mbuur la jógee mbuur champion jël ay nag jël ay jël ay drapeau mu ñëw daal nee na saa yu nee na saa di nelaw day gént dóor mu daanu te dóor mu daanu bu ñu soxla ko ci laam bi ci yow bu du xeex du bëri maa ngay jàpp maa ngay jàpp incha allah non est-ce que ñeme ngaa taxaw jàkkaarloo xeeru ngor di xeex ak moom. Baye Jili nee bu jour ba kan xam kan mooy Mbaye Tine. Baye Jili man turu xeeru ngor lu jënd moo ko te bu jour ba lay comprendre. Baye Jili gisuñu ko tamit nga bële ko xeeru ngor lan moo tax poids boobu lan moo tax nga wàññi loolu. wàññi poids. non xamal làmb ji xeeru ngor soxla ay. ay ay yokku poids. xam nga lu mu laaj. bëri nga daan ko dem ñëpp. yaa may dégg ndax damaa seeraan ay combat ñu ko daan ñëpp yaa may dégg ko damay bëri ma bëri bu gaaw incha allah rek combat bi du yàgg xaw ma ñaari minutes deux minutes moom en tout cas du ko weesu. combat bi ñu téere deux minutes moom du ko weesu incha allah rabbi. combat bu ko weesu deux minutes. mu ngi jàkkaarloo yow di la xool xool ko nga wax ak moom. Abdoulaye Sy. Abdoulaye Sy la tudd. Abdoulaye Sy. yow da ngay xalaat juru di nga xam ne yow doo dara. lépp looy jaay maa a ëppale maa la bu tële maa la bu lépp. Hmm. booy maa la bu jàppale ci làmb ah, mais mënoo ma daan ah, te bu subaa ngay comprendre. Hmm. yaa ngi yaa ngi wax rek di naagu. Ah, waaw léegi dañ may ñaanal maa jax say léegi. waaye tubaab Jola waa Mbour dañ may ñaanal bu baax a baax. kon nag mënu maa jax say léegi. waaw man man léegi maa ñaan te xaw ma man dawul sama yaram lu leer laa wax te bu subaa octobre ku ne xam na ni promoteur bi dafa tëgg ñaari mbër yoo xam ne ci ñaari gox la ñu dëkk. ci wàllu mobilisation Mbaye Tine lan lay wax ay supporters ak ban heure la fas yéene ñëw arène nationale. Ah, Mbaye Tine jël na cinq bolok avant tout. yow mi comme moom nu mu jëlee cinq bolok. Matar Ndiaye bi ma bàyyi ma fenn jël naa cinq bolok ci combat bi. dañu xalaat leer naa làmb ji damaa bëgg a wane sax ci làmb na dafa jot bi mooy sama dix-septième combat combat dama jël xeeruma duma jël ba heure ngay def dugg instant fii sama koñ la damay damay añ ba pare eh, lépp lañ yoon ràcc ah, jël sama temps dem instant daaw na lu neex. waaw du stade ba mu fees. jaajëf wooteel. waaye sax ñu sama gars yi sonn si combat bi trop. ñoom Burel ñoom Cheikh naay sama doom yaay sama xarit bari sëñ bi waa maa ngay ñaan yàlla may jàmm ndax dafa am yéene man di sonn si man. maa ngi sant ñoom Maguette Seck ak sama gars yëpp ñoom suul ñoom ala yaa may dégg ak ñoom amen mari ñoom móolu xam nga su ma limee damay juum sama gars yi ñoom Sina Dia ñoom Thiam mafia bi Yaama maa ngi koy sant bu baax Amady Mari sama gars yi xaw maa ngi sant sama grand Lirou Diane waaw Lirou Diane sonn si combat bi trop mi ngi siy jàpp wax dëgg yàlla mooy boole ay nit yu baax ñuy jàpp si combat bi grand Lirou maa ngi koy sant bu baax maa ngi sant suñu waa Igri suñu waa Igri maa ngi leen sant bu baax Lac de Guiers Alioune Seye 2 maa ngi koy sant bu baax a baax jàppale si combat bi yaa may dégg Arouna Sall jàpp na si combat bi maa ngi sant sama doom yaay Pape Kanda